ngi noonu mbokk yeeg nekk fekk naa la fa la jàpp loxo sista Caca Mbéré mi ngeen di am fii lan animatrice de tous les ngi noonu lu bees tàkk tàkk tàkk lu Dakar 24 daj ci paquet nee leen site boobu moo xew ci jamono ah. ah lu mu dugalul baaxul barke yonent bi ay information yu wóor lay dugal waaye dafa ñëw génn ah ci mission bu bees tàkk muy ah ëttu ndaw ñi ëttu ndaw ñi nag képp koo xamante ni da ngay ndaw yow la soxal waaw waaw parce que dëkk dëkk bi léegi dafa toj Sénégal yàqu na na àdduna yàqu na waaye ñun waa Dakar 24 dañoo indi plateau bés tàkk muy ëttu ndaw ñi ah toog waxtaan ak ndaw ñi li nga xamante ni moo xew ci dëkk bi li xew ci dëkk bi nag bëri na du lépp lañ mën a wax waaye defe naa ne bu ñu toogee suñu plateau teg suñu ataaya mbaa ngi teg suñu jota caaf ah émission boobu émission bu neex war a doon képp koo xamante ni nag ndaw taxaw sa buntu kër du ñu xaar ndax dinañ fekk waxtaan ak yow ci bu bees tàq bi ëttu ndaw ñi ay ëttu ndaw ñi ay ndaw ñu moytu leen xaar lañu dinañ ñëw waxtaan ak yéen ñun waa Dakar 24 comme niñ ko waxé comme émission bu bees tak tak tak tak lañuy ñuy démarrer nii bu ñu parents yi ñëpp a koy déglu pour gëna éduquer seen doom yi bu baaxa baax. lool fan lay xewé nee naa la Dakar 24 lay xewé ban jour la loolu. à tous les dimanches. quelle heure tamit. à chaque 20 heures ndaw ñi xaar leen ko. Ah, kon nañ ko xaar kon.